bu Média bu leen fàtte abonné wu bés close de notification bi ngir dara bañ leen raw ci suñuy xibaar internetu eh, Ngabou midia eh, dal leen ak jàmm ginnaaw buñ leen nuyoowaatee ziar leen eh, dal leen jàmm ci xibaar ñu wax nag ci lu soxal ay kaddu yi nga xam ne premier ministre Ousmane Sonko daal dina ko yëkkati ci conseil des ministres bi ñu doon amal ni ki ni démb moom nag premier ministre mi ngi daal ci félicité li nga xam ne rek moom mooy wàllu acquittement bu président de la république mi nga xam ne moom la def moom ak ñi nga xam ne moom la àndal ci gouvernement bi. ñeen lu soxal wàllu obligation déclaration de patrimoine respective nga xam ne nag daal nañ ko amal ci conseil constitutionnel ak itam fi nga xam ne moom mooy ca of nag loolee nag nekk ci délai imparti bi nga xam ne nag def nañ ko ñetti weer gannaaw nag boo jëlee sa fonction ba noppi maanaam ñetti weer boo tàmbalee li nga xam ne moom mooy sa liggéey gannaaw bu ñu la tàbbee ki nga xam ne nag moom mooy limaanu jëwriñ yi moom Ousmane sonk nag mi ngi sàkku ci ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ministre yi ñu daal veye bu baax a baax ngir rek ñu respecté euh, wàllu wi ni mel rawatina nag képp koo xam ne rek bokk nga ci ñoom ci exigence yooyee mu bokk ci loo xam ne nag daal di nang ko sàmmanteel li nga xam ne nag moom mooy déclaration de patrimoine nag nekk mbir moo xam ne nag képp koo xam ne daal di nga bokk ci gouvernement bu bes bi euh, ba nga tàmbali liggéey nag laata euh, alal bi nga xam ne nag am nga ko laata ñu lay tabbu loolee nag da nga ko war a fësal mu nekk nag ci wàllu kër ak yeneen yu nu mel danga ko war a fësal rek ba ñu xam ne daal di tàmbalee liggéey ci gouvernement bi loolee nag nekk li nga xam ne moom mooy déclaration de patrimoine te nekk nag loo xam ne obligation la nag ci ñoom ñëpp ñi nga xam ne nag dañuy liggéeyee ci gouvernement bi tax rek kii di ilimaanu jëwriñ ni Ousmane Sonko daal di ko waaye bu baax a baax yi nga xam ne ñu ngi koy amal gannaaw nag bu ñu wootee ngir rek ñu setal Sénégal loolee nag nekk na ay kàddu yoo xam ne itam yëkkati na ko mu nekk mbir moo xam ne nag daal nañu ko xamle ci conseil des ministres bi ñu doon amal ni ki ni démb ci àllarba gi. Ngaabu Média bu leen fàtte abonewu wu bés cloche de notification bi ngir dara bañ leen raw ci suñuy xibaar.